أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq dañuy dellu si rek ak yéen ci seen alburda ci buntu juróom-ñeenteel bi ci fi tawassuli bi nabii sallallahu alayhi wa sallam buntu bi dafay wax ci tawassul mooy jokku ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam say aajo imaamul busayri nee na qadamtuhu bi madiixin astaqilu bihi zunuba umrin mada fi shicri wal xidami mu ni xadamtuhu liggéeyal na sallallahu alayhi wa sallam bi madixin ci tagg astaqiilu may sàkkoo xàcc bihi ci tagg boobu ci tagg yooyu zunuba umri samay bàkkaari dund yoo xam ne mada wéy na fi shi'ri ci woy wal xidami ak liggéey boo xamante ni séentuwuma ca jëmmi yàlla ji dama daan woy ak di liggéey liggéey boo xamante ni séentuwuma ci jëmm suñu borom imaamul Busayri def na métier yoo xamante ni xëy na liggéey sax moom farata la waaye moom dafa gis ni liggéey boo ko deful ngir yàlla kese kese rek baaxul mu ni iz xalladaani ma tuxsha awaaqibuhu ka annani bihima hadiyun min annaami iz xalladaani jamono bañ ma ràngalee lu ko ràngal mooy shi'ra ba ak liggéey ba maanaam woy yim daan def ak liggéey yim daan liggéey yoo xamante ni da ci daan séentu mbiru àdduna te séentu ci mbiru yàlla mu ne ñoom ñaar ràngal nan mal maa loo xam ni tuxsha def na ragal awaaqibuhu ak mujjam ni fa muy mujj du baax ka an na ni ba mel ni ki man bihima ci ñoom ñaar yooyu mooy woy ak di liggéeyal buur yi wala leneen hadiyun maa ngi mel ni hadiye hadiya mooy gàtt wala gileem nag wala gàtt bi nga xam ne dañ koo rangal benn hadiya mu leer la ni lii kii moom das koy daal di jëfandikoo ci aj gi mina naami ci ak juru kër juru kër mooy gileem nag ak xarak bay yi ci aju mu ni kon man daal liggéey yooyu ma doon def ak way yooyu ma doon way ràngal nañ ma loo xamante ni ak mujjam baaxut ba maa ngi mel ni hadiyu mooy gàtt bi nga xamante ni dañ ko war a rendi ci aj gi kon tiitaange ñeel na ma dara mënuma mucciloo mu ni ataatu topp na xayya siba ataatu xayya siba fi xaalatayni wa ma xasaltu illa ala al aathaami wan nadami mu ni ataatu topp na xëya siba mbew teg ndaw fil xaalatayni ci ñaari melo yooyu muy dëkke woy ak dëkke liggéey bu yàlla taxut mu ni wama xasaltu te amuma ci loolu ma doon def illa alal athami lu dul ay bàkkaar wan na dami ak réccute rek mu ni fayaa xasratan nafsin fi tijaratiha lam tashtari diina bi dunya walam tasumi mu ni fayaa xasaarata nafsin woona pertu bakkan boo xam ni fi tijaratiha ci njaayam lam tastari jëndul ad diina diine bi duniya ci àdduna walam tasumi te waxaalew ko ci sax nag moom daal dafa waroon a jël diine jënde ko àdduna maanaam bàyyeem lépp luy mbir àdduna ngir diineem mu ni waaye moom defu ko jéemu ko sax nag walam tasumi te waxaalewu ko ci sax nag maanaam demul bay jéem a jël diine di ko jënde àdduna moom daal dafa topp bakkanam topp àdduna moo tax mu ni kon woona pertu bile bakkan mu ni waman yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul xabnu fi bayin wa fi salamin mu ni waman yabi képp ku jaay aajilan ëllëgam bi aajilihi ci tayam ah yabin dana bir lahu di ko ñeel alxabna ak nax fii bayin ci njaayam moomu wa fi salamin ak ci leblenteem boobu salam vocabulaire la boo xamante ni fuqaha yi ñoom ñoo koy utiliser am luñ ci jublu waaye buñ ko firee rek jaay ak leble di di nga ko mën a comprendre waaye albay wasalam loolu fuqaha yi am na nu ñu koy utiliser defal ko ay buntu ci seen téere yi moo ne mu ni ku jaay ku jaay ku jël sa àdduna jënde ko àllaaxira di nga xam ni nax nañ la wolof njaay day wax ni ku jël àddunay kese jënde ko àllaaxira bu la dee nuyoo nga perte bu la dee nuyoo nga xam ni sam njaay perte na ndax àdduna nga doon nga jënde woon àllaaxira te àdduna jeex na moo tax yàkkamti dina dugal nit ci loo xamante ni du gërëm mujj ga wolof da ciy wax proverbe yu bari ku rëbina xawma ku martaxanaan foo tiit bu rëbina ubbee nga rus yooyu yépp ay valeur la yoo xamante ni ngoru nit ki moom moo koy sàmm ba du def leen lu doyadi ndax yàkkamti walla lu metti bu méttee day muñ lu dat ba jógo jotagul na ku ko bëgg a indi yaa bëgg a sonal sa bopp wërsëg ku ko rañaan mu dëpp dañ koy xaar rek ba dat ba jot mu ñëw wërsëg bu newoon ci jëwu gaynde tamit yàlla indi ko du fanaan àll kon jërul jërul yàkkamti jërul te jéem a xëcc noo xamante ni du noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni inna ruuxal qudus nafasa fi ruuci anna nafsan lan tamuuta xatta tastakmila risqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wala yaxmilanna axadakum istib axadukum istibtaau risqi an yatiyahu bilxaraami fa innama inda allahi la yunaalu illa bi taacati aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jibril wax na ni ma benn bakkan du faatu lu dul ni dañoo matal wërsëgam wërsëg wu yéex a agsi bu mu tax mukk nga di ko sàkku ci anam bu araam ndax dina ñëw lu jara bàyyi xel la yàkkamti nag dugal nañu bari ci li ñuy dugg ndax yàkkamti moo tax mu ni kon ku jaayee àdduna àllaaxira bu ëllëgee dinga ko réccu ci sa njaay moomu ak sa leblante boobu mu ni in aati zanban fama ahdi bi muntaqidin min annabiyi wala xabli bi munsarimin mu ni in aati ndéem dama indi tamit zanban ay bakkaar fama ahdi déet sama kóllëre ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi mun taqidin di aji fecceeku minan nabi tukkee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kóllëre gi ma fas sama diggante yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam def bàkkaar du tax mu fecceeku su ma defee bàkkaar daal kon damay tuub wala xabli déet sama buum gi ma jokk ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi mun sarimin muy aji dog mu ni fa inna lii zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal xalqi bi zimami mu ni fa inna lii ñeel na ma zimmatan kóllëre minhu gu tukkee ci sallallahu alayhi wa sallam bi tasmiyati ci tudde giñ ma tudde muhammadan muhammad muhammadul busayri la tudd borom téere bi waxwata mbir moomu tudde giñ ma tudd waxwata mbir moomu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam awfal xalqi moo gën a matale ci mbindeef yi bi zimami ci kóllëre yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a mën a matal kóllëre ci li yàlla bind mu ni kon man lu ma bari bari bàkkaar ba léegi maa ngi am yaakaar maa ngi am yaakaar kon nit ki tamit lu mu mën a def ci ay bàkkaar bu mu naagu ni yàlla du ma jéggal lu mu def ci lu baax tamit bu mu naagu ni àgg naa loolu tamit lu jar a bàyyi xel la mu ne in lam yakun fi maadi aaxizan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallata alqadami mu ne in lam yakun bu nekkul moom sallallahu alayhi wa sallam aaxizan di aji jàpp bi yadi ci sama loxo fii maadi ci sumay dellu ci sama borom bis bu ma sama borom woowee bu ma yonantu bi ràmmuwut ci safa am musiba dina am mooy nag da koy def rek fadlan waaye du benn loo xamante ni ak jiitu la guma def jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf koy def rek saraxe ma ko def ko fadlan def ko ngëneel rek wa illaa bu dul loolu foqul waxal ni yaa zallatal xadami woo naa aji tarxiis ji ndëggu nee na daal bu loolu amut xamal ni sama ndëgg tarxiis na sama ndëggu tarxiis na kon mu ni yaakaarul kenn kurul yonent bi mu ràmm ko ëllëg bu ko suñu borom woowee mu ne ah yaakaar boobu day xaasaahu an yuxrima raaji makaarimahu aw yarji al jaaru minhu gayra muxtaramin mu ni xaasaahu jomb na ko moom sallallahu alayhi wa sallam an yuxrima muy xañ ar raaji aji yaakaar ji makaarimahu ay ay teraangaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay teraangaam jomb na ko xañ ko ko yaakaar ñi ko yaakaarul sax ñi ngi mucc ngir moom kon waxantuma laak ñi ko yaakaar mu ni wala aw yarjaa wala di dellu aljaaru dëkkandoo minhu jóge ci moom xayra muxtaramin te teraluñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ci indi ci moom soxla mu teral ko mu ni kon jomb na nit ñëw ci moom di ca wut aajo te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teralu teralu ko kon man mu ne lu ma def daal du tee maa ngi am yaakaar wa mus alzamtu afkaari madaihahu wajadtuhu li xalaasi gayra multazimi xayra multazimi bokk wa mu ni wa munzu alzamtu dépp di déppi jamono bi nga xamante ni taqoo na afkaar yi samay xalaat mada ixahaw tagg sallallahu alayhi wa sallam di bàyyi bàyyi la ma daan def lépp bàyyi liggéey bi ma daan liggéeyal ngóor gi wala liggéey bi ma daan liggéeyal nit ñi wala woy yi ma daan woy keneen léegi jël sama lépp def ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni wajattuhu fekk naa daal ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayra multazimin mooy ngën ji warlu li xalaas yi ñeel sama mucc nee na man ko comme que man dugg naa ba mel ni rubba li ma mën a génne ci sama musiba mi ma nekk mooy continuer di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ma ko tàmbalee ba léegi nag gis naa ni moo mooy ki gën a warlul ci man ni man dinaa mucc imaamul Busayri ku ne xam na ni boroom daraja la woon kon yii muy wax daf koy wax ngir bàyyiloo xel ñi nga xamante ni ñoo toll fenn fi ak ñooy def leen li loolu suñu mag ñi dañuy waxe noonu boo dégloo si alxaaji Maalik mu ngi waxe ci taysiir naan la dama wajal baxru baxru zambiya siqati wa innani rabbi xiftul garqa yallaahu wa ma safinatu turja gayra rahmatika uzma al amimati kull al xalqi yàlla ak moom ni mu toll ci jaamu yàlla kon ñi nga xamante ni dañuy xëy li ñu tooñ yàlla ëpp liñ koy jaamu nu ñu war a mel ci jéggulu ak dellu ci suñu boroom mu ni walan yafuutal ghina minhu yadan taribat innal xayaa yunbitul azhaara fil ikami mu ni walan yafuuta du faat mukk alghina koom minhu bu jóge ci sallallahu alayhi wa sallam yadat yadan loxo boo xam ne taribat perte na taribat yada mooy koo xamante ni dóor na loxoom ci suuf mooy ku perte mu ne ndax innal xayaa naka taw yunbitu day saxal al azhaara ay ay ñax ay gàncax ay fleur fil ikam yi ci kaw tund yi wala bokk ci kaw xeer yi wala montagne yi al ikam mooy place bu jóg ci suuf mooy ar ar ar robwa moo tax mu ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ni sax dafa perte ba yaakaar ne mbir ya raw na ko mën naa jot ci safaam mën naa jot ci am tinoom mën naa jot ci am rammoom mën naa jot ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu ni innal xayaa naka taw mu ni taw dina saxal gàncax ci kawi xeer te xeer ku ne xam na ni du bërëbu du bërëbu kii kawu montagne ku ne xam na ni foofu du bërëbu sax ñax yaakaaruñ ko fa ñëpp yaakaar na ni du fa sax far mu yàlla mu sax fa kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asama ak moom mu ni walam urit zahrata dunia allati iqtatafat yada zuhairin bima asna ala hirami mu ni walam urit te te bëgguma nag zahrata dunia foñitu àdduna benn bagaasu àdduna zahra mooy fleur mu ni benn bagaasu àdduna bëgguma ko ci tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allati fëlëru àdduna ya nga xam ne iqtatafat daggoon na ko yaddaa zuhayrin ñaari loxoy zuhayru ibnu abi sulma bima ca la nga xamante ni asna daan na ko tagge ala hiram ibnu sinaan ala hiramin ci hiram ibnu sinaan zuhayru ibnu abi sulma wala salma ab boykat la woon waaye moom dafa daan tagg benn buur dafa bokkoon ci giir boo xamante ni moom moo nekkoon ma magu kaab ibnu zuhair ibnu abi salma c'est giiru woykat la bokkoon kaab woykat la woon di rakku zuhair zuhair woykat la woon seen baay tamit woykat la woon am na bujayri tamit woykat la woon ci seen famille la bokkoon ñoom ñëpp ay woykat la woon mais zuhayr moom daf daan tagg benn buur buur boobu daf ko daan may may yoo xamante ni dafa dépassé sax xel kenn mënu koo tasawur muy harim ibnu sinaan muy nag man woy gi may woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgguma ci dara bëgguma ci foñiitu àdduna yi nga xamante ni Zuhair ibnu Abi Sulma daana ko am ci woy gum daan woy Harim ibnu Sinaan kon moom tagg gi mi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolu ci benn benn foñiite àdduna lim ci bëgg rek mooy yàlla musal ko ci rëcc rëcc àddunaam yi yi nga xamante ni dal na ko loolu la imaamu Busayri doon ñaan ci tawassul gi nga xamante ni moom la doon def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla muccal ko ci tartari ëllëg ci barke sallallahu alayhi wa sallam te ku nekk nag sañ na ko ñaan ndax huwa alxabibu alladi turja safaatuhu fi kulli hawlin min al ahwali muqtahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñépp yaakaar ëllëg am ram moom te mooy bëtt bépp tartar ëllëg amul kenn koo xamante ni du dugg taxta safaati nabi sallallahu alayhi wa sallam junjoon naa leen ko ca xadisu safaa al kubra assafaa li ahlil mawqif dina toll foo xamante ni ñépp ci xelu sallallahu alayhi wa sallam rek lay dem moo tax mooy soppe bi nga xamante ni ñépp moom la ñu yaakaar ëllëg moo tax imaamu Busayri def tawassul gi moom pour teel a jokk ci sallallahu alayhi wa sallam foofu la bunt boobu yam benn bunt moo ci def bu subaak jàmm insha allahu ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin muy almunajatu wa ardul xaajaati mooy bunt bi nga xamante ni ci lay déeyaale ak suñu boroom di déeyaale ak boppam ak tamit gaaral ay aajoom ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu